altine nga ne ma samedi 15 janvier ca stade Iba Mar lépp di xewee ah, ah maa ngi jégalu sama gars yi salaamaaleykum Sénégal maa jàmm nga dama tiit di rent Dakar ñëw ci na ak doole ju bëri ak deuxième émission wu drapeau ministre chargé du PSE monsieur Abdou Karim Fofana doomu fan point 1 ak fan Abidjan ak fan fan xanaa fan yi bëree ci na de combat bi nag di jàmmaarloo ngeer écurie tay shiga nekk li yéen naaw ci Eumeu ak Boursin écurie Bawol nga xam ne Tapha Tine mooy magam déglu leen ma nag ak ay préliminaires yu saf sàpp nga ni ma billet yi nag yomb na lool déggu ma de tribune supporters yi 2000 tribune amateurs yi 3000 loge bi nag 5000 francs dong la lamb ji nag du nekk en direct ci benn télévision dama ne dem leen seetaani ko stade foofu la mbir mi nekk jaajëf moo koy suivre lu tv point com ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziare làmb ji jeex na ñu toog ak ki nga xamante ne moom mooy Socé ginnaaw bu ñu seetaanee démb mu indi poulain wam Pape Ndoye mu bëri fi démb ak taqe am ndam ci kaw mu nekk deuxième victoire de la saison dama koy nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yëpp bu ko defee ñu waxtaanee combat dem waaye waxtaan tamit ci potentiel adversaire am ndax jël nañ ko li fay am na lu mu wax Socé maa ngi lay ziar la fay di la jox sa wàccuwaay di nuyu mbokk internet tamit. comme ni ma ko waxee démb andi nga sa poulain muy Pape Ndoye mu bëri fi démb stratégie bi mu teg ci combat démb bi mu bëgg nga ñëwoon ma ci loo ngeen ko bëree moo xalaatal loolu boppam bëri ko parce que dañu gis ni arbitre bu daan waaw waaw Pape Ndoye wax ba dañ liggéey ak moom nag si combat bi quoi waa a bëri ak moom mës a bëri ko étudier ko bu baax a baax ne ko nag waa ji nga dal boo dalee tuuti nga jéem a fexe noo noo ko woowee si xeex il faut nga jël koom na pour jàpp ko boo xoolee loolu boo xoolee combat bi noonu noonu la déroulé. da ngeen ko waxoon foog nga jël ko. waaw il mu jël ko parce que waa ji xeex loolu la am il mu jël ko pour pour mun ko jàpp. donc su ko jàppee ñu xam nañ xamoon nañ bu ko jàppee làmb ji jeex. xamoon ngeen ne bu ko jàppee làmb ji jeex. def ko dàqoon bëre daf ko dàq bëre def ko ëppoon doole wala lan fan nga tegoon woon Pape Ndoye bu jàppee taqi làmb ji non si mën a bëre Pape Ndoye laa ko teg rek du ay yëpp làmb doole baax na a bëram laa ko teg waaw kese laa ko jeex mu nekk deuxième victoire de la saison mu mel ni forme bi mu andi sax moo gën bi mu andi woon contre Abou Niassé da ngeen yokk liggéey bi wala li combat jegee moo tax non mais boo xoolee combat boog Abou Niassé ak combat bi sorantewul quoi bu mu jógee si ab jaag bi bu mu taxee dafa continuer liggéey bi rek continuer liggéey ñu gën a am lu ñu yokk xam am lu ñu yokkaat bu baax a baax xam nga rek si waaw loolu la demee quoi. liggéey waaw liggéey boo xam ne dafa liggéey continuité la waaw noonu la demee. na gars yi nag instant bi ñu ngi def seen i combinaison am na ay adversaires yu ñu tudd di tudd Pam nga xamante ne yow yaay euh, mentoram kan nga gis ni mooy adversaire am pour le moment. non fii instant yii comme ñun ak ñun ak ñoom kii la cooki fin bi daa daa des ba léegi waaw ñu nag waa Caaroy Lamsaar yëpp du Lamsaar kese parce que dama gis ne Coulé Faye de saa ñu bëreeg waa Lamsaar moom dina dugg nge si te gunge na ñaari waa Lamsaar ñu daan leen moom dañ mu jël combat bi waa Lamsaar gunge ko moom tamit ay doomu ndeyam lal waaw moom mu jël ko parce que moom mënul nekkee fii di naan day gunge gars yi rek te ku mu gunge ñu daan na jéem a ñëw ñu gunge ko moom tam waa Lamsaar gunge ko Coulé Faye jël naa ko sànq nee na bëriwul ak Pam parce que du moromam dafa daan maître fii ay maître di nga làmb amul ay maître fii ku Pam Doy moom su su bañee Pape Ndoye da ko ragal donc nag mais instant yi amul nu mu mais daa def la Pape Ndoye defal si lamb moom moom moom moom moom moo ëpp defet Pape Ndoye bu ñu xool palmarès moom moo ëpp defet Pape Ndoye mais Coly kañ la ragal soose ba nga ko bëgg a jàppale non non Pape Ndoye ku ko ku ko bañ jël instant ku ñu ko proposé si ay morom muy Coly Faye ak keneen ak keneen boo ko bañee jëlee rek da nga ko ragal wala daa am looy soor si moom Coly général la mujjee daan général général lañ général naka la ko daanee par par par par recours la ko daanee ndam la mais si biir géew bi kan lañ jox ndam général lañ jox ndam si lañ demee yaata seen see gars yi xool mais loolu yëpp amul amul solo bu bu loolu amoon sa lamb kon Balla Gaye du du dóol ba tey di bëre ak ay Boy Niang lamb amul ay kii maa ko daan ak ay kii maa lii. lamb jooju la la amateur yi bëgg qualifié deux pam doy moom la koo def micro instant loolu lay wax moom su fekkee daa bañ ko combat rek moo daa ragal mu fo loolu mooy lu wér. amateur yi kay jël naa ci ñu bari ñoom jàpp nañ loolu loolu mooy combat ba ci ñox bàyyi gisal ba ñoom ñëpp. moom laa la moo moo moo tax ma ne la combat bu ñor la su ko bañee rek da ko ragal. li fa ragalul de. mais ragal dafa mën na mën a paaw dafa ragal mais mën na ragal pam doy mën na bañ a ragal mais ragal pam doy lu muy ragal ci Pam Ndoye te daan moom dafa gunge ay ay ay ay copain am gunge leen Pam Ndoye def leen lu leen war a def moo tax mu am xel ñaar booy man nag man nag man man man laa bu man tey may gunge samay nit may gunge samay copain ñu daan damay xataraay pour bërëg yow pour daan la pour freiner moom mooy waree fam fu mu ko gunge ne waala saar moom moom mu am nu mu demee ñoom na jël avance bi moom si boppam waalam saar gunge su ko ñu daan ko jëlee bu rek moom moom xam ne ne bu jëlee avance bi daanu booy bi fuuf Pam Ndoye ko dàq bëri fuuf moom ko la fay da boobu xam na loolu bu baax moo tax mu naan muy wiiri kat wiiri wiiri nag bu dul tey du suba ñoom ñaar dañuy bëri sa par force. day naan rek la daan di ko hmm? naan la daan takk ku la fay da gënul nekk takk ndaanaan ku la fay bi gënul nekk takk ndaanaan de ndax Pape day la daan ba egg si fii mu egg si moom laa wax ni képp kuñ ko proposé nga bañ da nga ko xaw a am daam looy ragal si moom waaw noonu la demee ku la fay da moom. moom na xam ne Pam Ndoye bi adversaire potentiel am biir Fass. mënutul bëre keneen biir Fass. moom nee na adversaire Coly nee na potentiel adversaire am écurie Fass Lac Rose. non Lac Rose mu ngi bëgg grand frère am instant yii Lac Rose dafa ne si dafa combat am Lac Rose ama neex moo taxaw moom Lac Rose nekkul moromam wala ma neex ay ama neex lay bëreel moom na jéem a moom su bëggee dugg voilà moom daa bëgg a bëre ak Lac Rose. waaw léegi la jël Pam Ndoye bu jógee si Pam Ndoye kay Lac Rose du bañ moom koy buntu baa ngoog moom koy su bëggee bëre ak Lac Rose dong dong dong dong na jël Pam Ndoye su si génnee Lac Rose day taxaw si kanamam loolu garaawul mais pour mu bëre Lac Rose wala bu mu bëree keneen Fass Pape Ndoye rek Fass moom fu mu toll bu taxaw la Pape Ndoye taxaw si kanamam amul keneen ku muy bëreel Fass na a a ngi a ngi eh, a professeur la moo tax ñëpp a a bëre ko jël mu jox leen leçon. non non garaaw lamb moom moom saa moom bu fekkoon ne moom c'est pas la jël lamb xalaat da ngay daan yàlla nag moo fi nekk yàlla ay ndam mais lamb boo jël da ngay xalaat war a daani Pam Ndoye xale la te xam nga ne Pam Ndoye xale la. Pam Ndoye dafay tamit xale. waaw ku dafay xale waaye ñaari xale dañu a bëre xale buy daw moroom bu dee tudd Lac Rose mais xam nga ne moom bëggul ay Lac ay pas la bëgg a bëreel moom bu nga jox la avance Lac Rose suba bu ñu ko yeewoon tey ñu ko avance Lac Rose du du ko lekk moo la gën a xam lu xew. dañ bàyyi yooyu ñu nga làmb ji nañ bëree seen biir ñoom ñoo mën a mayante xaalis ñoom booy yi. ku la fay de Pam Ndoye combat bu ndax jotul ñëpp ñëpp ñëpp moom lañ bëgg muy mbër yeeg amateur yeeg supporter yëpp moom lañ bëgg. ndax jotul ngeen ratifié xeexu Pape Ndoye bi que chaque combat gars xeex di jël ay coups. bi boo xoolee combat bi xeex bi xaw mu ngi changé xam nga mënuñu tëb rek moo mën a ndoo lépp mais boo xoolee par rapport ak yeneen combat yi xeex mu ngi changé boo xoolee ñoo taxaw aj gardam te Pape Ndoye daanul def loolu mais yàlla baax na fekk combat yi di am fekk ñuy nekk di liggéey di nga gisaat beneen changement si Pape Ndoye si moom dañuy yokku rek mais côté xeex bi la ñu gën a liggéey fu mu toll allah waaw. général Gamou Gueye ñu ngi de dégg naa ko ndax loolu baax na ci. non jaadu na combat combat yi ñoom a bëree parce que ñoom ñaar yëpp seen defet lañ jógee bu leen bool la ñu war a bëree ku nekk kenn may kenn dem kenn xaar combat yi fi nga fi mbër bu ñu jox sa morom da nga war a bëree ak moom man xam nga laa contre mbër nga naan ay diw ay di xam nga yooyu amul sens yow da nga opté pour nekk mbër mbër mbër mooy sa liggéey da ngay bëree pour am mais ay diw laay bëree la ak ay di taamu di jéem a mbër bu ndaw tollul foofu da ngay bëre pour fekk ci sa morom yi da ngay a fexe ba rek sa morom jeexal leen dem fekk sa morom yi Gamou général combat ay morom la dañu war a bëri si ay morom la dañu war a bëree waaw lamb la. ana Serigne Ndiaye mi ngi waaj. waaw ah, Serigne Ndiaye mi ngi waaj bu baax bu baax a baax sax. waaw combat de. waaw combat la ñun respecté nañ adversaire bi trop waaw ñun joxuñu ñun duñ jël adversaire di la manque de respect. waaw parce que lamb fi noonu am na ñu koy def am na ñuy jël adversaire di ko manque ñun amuñu benn adversaire bu ñuy jël tey di ko manque de respect. muy ku ñu daan ak ak daan moom lañ si bokk yemale. adversaire dañ koy jox si côté yëpp ñun du ñu fooyee làmb te noonu la demee làmb ji làmb ji ñu fonk la tamit quoi man dama xam ne làmb hmm. dese gum am na grand combat ah. am na xam am. na neex du 3 avril. waaw Lac am na neex dégg ngoog 3 avril am na beneen sax Baara Ndiaye ak même jour la Bara Ndiaye foo rouge yëpp a ngi si ay combat ñaam naa ñaari grand combat yi na non dégg naa général kii foofu lañ ko bëgg a dugal général Gamb day gën a neex rek day gën a neex rek loolu du diis so du diis eh, buy baax moom amul benn ruq buy sedd sa waay fépp ay ñun moom mun nañ bëri dix combat si benn am nañ dix poulain yi mun a bëri si benn journée lamb la mooy lu ma la lamb mooy suñu liggéey lamb mooy suñu bureau kon ñun wa maanaam mu ngi mel ne tey entrepreneur ba tey boo ko joxoon dix bâtiment da koy jël Amadou Katy Diop lan lan leen yokkal. waaw suñu papa la ko ñuy gën a yokk xam saa su ne saa su ne de ñun ñii sax man ñuy sax daf may gën a yokk xam waxuma a yokk xam-xam dafa ñëw gën a yokk xam-xam bi si côté yëpp hmm. waaw. Gris 2 fu mu jëm. Gris 2 non Gris 2 bëri na adversaire de bëri na ñu fi nekk bëri na. Franc. Franc moom mu ngi say guta bàyyi bu mu génn si guta gu nekk ba pare. benn nekk say jafe-jafe instant jafe-jafe. jafe. yooyu seen mu ngi say jafe-jafe ba lay génnagul ak ñeneen ak ñeneen wax ñu beneen adversaire kay mooy potentiel non adversaire yi bëri nañ non non du Franc kese ma ne moo ne si lamb ji nag sax. parce que moom Lac de Guiers la laaj démb de Guiers laaj na Lac de Guiers laaj na laaj na Garga Mbossé laaj na Yékini si yor waaw mooy combat parce que Lac daan daan grand frère am mooy Abdou Diouf Abdou Diouf moo leen ñu Abdou Diouf moo leen tati si bëre mun tam man nag ku daan sama grand frère dama dem lay bëgg a fayul. lan moo tax Lac de Guiers ba mu daanee Tapha Gueye Gris Bordeaux fayulu la dëgg boobu jamono yi Gris Bordeaux mu ngi seen avance mu mu ngi seen mais instant nii ñoom ñaar Gris mu ngi si combat moom amagul combat moom mënuñu ko wax Forza muy bañ ñu ko wax Moro muy bañ il faut mu jéem si jël kenn nag bëri moom sa waay. Ndiaye Tine gisee jël bi mu daan rëy na. Ndiaye la Ndiaye Tine booy boo xam ne dafa respecté entraînement ba man damay daje moom lu bëri damay daje moom lu bëri day daj am na mbër mooy li ma la di nga mbër mbër bu la si kenn nax mbër bu la dàq entraîné gën la ñem entraînement bu ñuy naxante bi teel yi baax na trop bi premier sëriñ bi mooy entraîné ba taxaw mooy premier sëriñu mbër mbër bu parewul sax mbër bu parewul wóor naa yàlla bu la joxee bitéel yëpp boo ñëwee sa xel yow sa bopp da doon nekk si géew boo xoolee sa morom mu gën la pare doo ko ñeme mbër dina mbër ma fa laay wax chaque jour moom mooy dama wax benn wax ne mbër te du ko ñeme façon boobu laay waxee mbër day pare mbër doo xaar ba mu combat di bëgg a entraîné da ngay mbër da ngay préparé bu ne na combat xóob rek nga fekk nga pare da motali rek mais mbër boo xam da toog ba mu neex la nga jël combat doo ko loolu du mbër bu pare loolu loolu lu nekkul yëfu mbër mbër da ngay entraîné matin soir di entraîné nekk nekk mbër xam ne mbër nga loolu mooy yëfu mbër te Ndiaye Tine su loolu laa koy gis. maanaam mi ngi ci li ko war daal. moom lu bëri Ndiaye soronte wuñu dañuy gisante dañuy daje dañuy waxtaan waaw jantal boo la te ndam li jàll na ko jéeg bàyyi ma ñoon junior bàyyi ma ñoon deux tamit di ko di ko encouragé ne ko ko ñaanalaat beneen combat bu dul combat waa Fass yàlla mën ko seen ndam jërëjëf kontaan nañu. jaajëf Lamine merci beaucoup waay. samedi 15 janvier ca stade Iba Mar Diop foofu la lépp di xewee ah maa ngi jégalu sama gars yi salaamaaleykum Sénégal maa jàmm nga am dama tiit rent Dakar ñëw ci ak doole ju bëri ak deuxième émission wu drapeau ministre chargé du PSE monsieur Abdou Karim Fofana doomu fan point 1 ak fan Abidjan ak fan fan xanaa fan yi bëree ci combat bi nag di jàmmarloo ngeer écurie tay shiga nekk li yéen naaw ci ak Boursin écurie Bawol nga xam ne Tapha Tine mooy magam déglu leen ma nag ak ay préliminaires yu saf sàpp nga ni ma billets nag yomb na lool déggu ma de tribune supporters yi 2000 tribune amateurs yi 3000 loge bi nag 5000 francs dong la lamb ji nag du nekk en direct ci benn télévision dama ne dem leen seetaani ko stade ndaxte foofu la mbir mi nekk a ngeen jëf